min xasiifi fu fu fu fu ñàkk solo xirmidi xamante ne ban la ban bu ñàkk solo moom la Alxuraan di wax ne min maa in ban la ban bu ñàkk solo moom la yàlla bindee nit moom la yàlla bindee nit waaw te loolu bu mu la jaaxal wala déet ni ma leen koy misaalee toujours rek gis nga ko gars yi dañuy defar télévision ah wala defar benn ordinateur wala defal ben téléphone téléphone bi lan la Nokia xawma 90 la xawma gis nga ko waaw waaw 6700 ya xam xam nga dina cher waye carton bi ko yenu carton mo luñ ko defare ak ñak solo carton bi nga xamantene mo lañuy la dugal télé ak carton yi ñuy defar dugal euh, téléphone yi carton yi lo ci man am sandre lu mo am jik parce que ñu ngi defaree matière bu ñàkk solo waaye xoolal téléphone bi matière bi ñu ko defaree ak téléphone bi ni mu baaxee ak ni nga xamante ne noonu la saa subile noonu la yàlla def nag yàlla dafa defar ruux ruux ni mu matee ruux ak ni mu toll ruux ak ni mu li mu yenu mu defar carton bu ndaw mooy yaram bi walla déet ñoo dugal ko ci biiram moo tax bu demee ba pare comme carton carton télévision boo jëndee télévision ak carton boo indee ba ci kër gi noo def carton sànni rek moo tax yàlla nee nag kon sànni leen ma ko ci biir suuf si comme yàlla dafa am orma ci biir suuf si yaram amul solo ci nit ruux bi mooy mbir mi bu yomal kaamati jote nag foofu la koy defaraatee nag du nekk carton de foofu taabul la koy tegal moo tax yomal kaamati foofu yaram du màgget te fi yaram dafay màgget ruux du màgget de yaram mooy màgget ci gis naa ko ci internet bi de kan laa doon wax ni ne fi mu nekk nii si man nga dem hôpital gars set seet la ci laboratoire du laboratoire sax mooy yooyu ñuy seetee si biir bi xaw ngeen affaire ñuy def ci pokkutaan bi nii nga seet sa yaram bi si biir bi bu mel noonu lan lay jox boo paree buñ ko tegee danañ la wax ban ban at ngay dee ban at ci ngay dee ci yaram bi lañ ko seetee nag maanaam dañuy seet yaram bi mana waxuñ ne do accident de do def yoy mana dañ lay wax yaram bi su fekke ne mu ngay dund normal ban air la war a paan jeexal aw loolu aha naka la ko tuddé on one bi ci internet bi mu ne gis nga ko bi samaani miati dollar faqat mu ne taarifu yawma ma mawtika <laughs> parce que affaire bi lay jaar waaw juróom-ñetti matul junni juróom-ñetti gis nga ko dollar juróom-ñetti téeméeri dollar mu nga koy jëndee boo ko jëmee xool dana la wax ban at ngay dee arba léegi nag mu def problème nag est ce que nit ñëpp bëgg nañ xam kañ lañ war a dee mooy ciy jàmm de moo ciy jàmm hakada léegi ñoom noonu foofu lañ ko teg boobu bu bu leen fen loolu lu mën a nekk la maanaam fi ñu ko teg mooy ci yaram bi lañ seet parce que nit ki bu juddoo gis nga yaram bi dafay baax ni muy gën a màggee yaram bi di commencé di sonn noonu ba ba muy màggee moo tax da gis koo xam ne dafa am juróom fukki at commencé di yëg ay feebar yoo xam ne du ko doon yëg maanaam yaram bee commencé di paan léegi ñoom foofu lañ koy seetee gis nga ko desere beeg ban heure nag la war a yëpp arrêté léegi nag foofu lañ koy teg nag bi nga war a dee waaye waxuñ la nag doo accident waxuñ la gis nga ko duñ la jam fetal nga dee déedéet dañ la wax ban heure la war a jeexal kon moo tax ma ne la yaram bi yàlla mu ko defaree ban bu suufee moo tax mu yàqu waaye amal ki amati nag du ko defaree ban moo tax foofu yaram du màgget foofu yaram du sonn foofu yaram du ñàllaxit foofu yaram du cabinet foofu yaram du saw xam nga li ma la parce que defaroon ko matière ban bi nga xamante ne dafa suufee waaye dañ ko defaree ban matier parce que xoolal carton yi bu tooye yàqu bu daanoo la ci biiram toj li koy yàq dafa yomb wala de waaye bu fekkee ne defar nañ ko nag defar bu dëgër ni ki table nag bu du yàqu boobu nak moy yomal qiyam boobu la di jël nak yaram ba nak du defare suuf de suuf suuf bu ban bii benen matière la koy defare jël ruu ba wat ya nga donat mom nak waye nak amatul yàqu waaw abadan abadan abadan du yàqul kon motax tax ne la fal jismu yaram bi kuwi na ñu ko defare min khasis ci lu soufé hirmi di moy ban ban bu soufé lañ ko defare war ruh bu de bi nak arfan kaana nekkoon na nu suuhu fa mu sosoo man soo fa mu bugg a dellu moom fa a dellu foofu la jóge mooy ca yàlla mooy ca asamaan léegi nag min zaaka ca foofu nga xamante ne al mala il ala mooy àndandoor yu mag ya mooy ànd ak malayka yi rek al am njëdi nga xamante ne dara génn ko ànd boobu nga xam ne ànd boobu ànd bu rafet la waaw parce que ñëpp foofu la ñu nekkoon ndeysaan ba wàcc si gis nga ko buñ ñëwee nag ndeysaan buñ jëfee jëf bu baax ñu delloo leen foofu waaye su fekkee ne jëfuñu bu baax nag ci lañ leen dugal dafii si jiini yal nañ ci yàlla musal yaa rabbi yal nañ yàlla may xusnul xaatima kon war ruuxu ruux bi kaana nekk na nu suuhu fa mu sosoo man zo moom fa mu bugg a delluwaat min zaakal malay foofu nga xamante ne mooy àndandor al ali bu kawee ba al am nga xam dara genu leen fa yahinnu mu ngay namm zaaka mooy yaram bi li ardi pour delluwaat ci suuf bi tasafuli dugaat ci bi suuf yaram bi dara la soxlaw lu dul la ñibbiwaat fu mu jógee rek comme nit na muy nammee pour ñibbi këram noonu la yaram bi mel bugg a delluwaat ci biir suuf si mooy nga gis muy màgget di sonn bi ba muy dee ñu jëlaat sulaat ci biir suuf si mu delluwaat mu noppal way yaxinu muy namu za mooy ban mooy ruuxu bi li sama ay pour delluwaat ci asamaan léegi nag bii mu nga bugg a dem ci suuf bii mu nga dem ci kaw lu ko mën a arrêté moo tax dee kenn mënu ko arrêté parce que ñaar ñi dañu doyal tey jii boo ñaa boo ñëwee ci jëkkër ak jabar ñu am histoire Alxuraan mu ne fa in araada islaaha yuwaffiqillaahu baynahumaa yàlla nee na bu fekkee ne ñoom ñaar bu bëgg ñu rafetoo kon bisimilah bu ngeen waxee rek ñu déggoo waaye ñaar ku ci nekk dafa doyal ci morom ki ku mën a wax bañ delluwaat parce que kii dafa bëgg a dem gisatu leneen lu dul dem imaa la tax la fa gis maanaam gis nga ko alal la gis bëgg a dem sëy foofu wala góor la gis bëgg a seeli kooku wala doyal na ci yow soxlaatul kii soxlaatul kii soxlaatul ñaar ñoom pour nga boole leen dina jafe ñaari xarit itam bu ñu buggee juboo pour nga jubale leen dina yomb waaye bu fekkee ne ku ci nekk doyal na ci si morom ki pour nga jubale leen dina jafe de mënuloo ko da ngay wax bi bëgg a dee waaye buñ pare ku ci nekk dem yoona mën a ruux bi nag ak yaram bi noonu la dañuy tàggatoo bi pare kii dafa bëgg a ñibbi ci suuf si kii bëgg ñëw ci ñibbi ci asamaan kon diir ba ñu taxaw négocier la rek waaye dem mom dafay am moo tax xale bu juddoo rek xam na ne dafay dee wala dee moo boko boo ak et rek mu ne paka? maa bugg a rey boo génnee paaka <laughs> mu daw mu ne dégg maa bugg a hakada ko def diggante ruhu bi ak yaram bi kon il faut que séparation am la ca am solo mooy dir ba nyom ñaar ba daje fexel ba résultat bu baax génn ca wala du non parce que ñaari matière yu baax bu ñu dajé rek dara daf juddoo wala du non kon fexel ba ñoom ñaar ba ñu dajé mu am lu ci juddoo te al aljanna ba yàlla nañ ko yalla may mu ne wal mar unit nit ki nak nga xol ko nak di seen baynahuma ci diggante ruuxu bi ak yaram bi ma khafata diragal furqati ñoom ñaar ñu tekkale ko tey mu dem ci jallo gannaaw suba mu dem ci gis nga ko siñ sañ gannaaw suba mu dem Paris sax dina fa dem France pour dem faju ji hmm. di daw dee rek France sax dina fa dem Amérique dina fa dem fu nekk dina fa dem dem faju ji fay ay million di daw dee fan lay mujj foofu lay dee ñu yébaat ko avion indi ko parce que ñoom ñaar doyal na kenn mënatu ko arrêté nit ki nag bëggul ñoom ñaar ñu teqale ko du dara nag lu dul miin waaye nag moom sax dafa neex si njaw àdduna neexul waaye miin la miin la miin la nit dafay miin waaw nit dafay miin lii moo ñu tax di ñaan gudd fan parce que dañuy xasa miin bii te bëgguñu mu dem waaw waaye firul nag moo gën a neex da nga gis maire yi nekk ci àll bi xamuñu dara ci teeru seen doom dem ba am alal ju rëy ca teeru ba am fa kër gu rafet ñëw jël la yóbbu leen fa duñ fa mën a dee na ñi bi di jàkkaarloo ganaar di dàq ganaar yooyu mu leen gënal gis nga ko xëy dem ca àll ba gis nga ko aji ñaari moom ñetti moom ñibbisi moo ko gënal nga yóbbu ko fee xakada du fa def yooyu yëpp te foofu moo dàq waaye nag miinu ko bii la miin bi mu xas a miin wala du noonu moo tax miin rek la waaye taxul mu neex de moo tax ñu ñaan gudd fan kon yal nañu la yërëm bokk wal mar un nit ki baynahuma seen diggante ma xaafata mu ngay ragal furqatin ñoom ñaar ñu teqale ko wa nawaa mu nga soxla القذوف قذوف قذوف قذوف ونوع مغيين قذوف جنا صخرك في المقيم في نخا من دنا فوفو لا صخ موي دك وايام الموقي دي فوفو غامل موي توغو كاي قذوف موي صخ موي موي موي موي, موي لزوم ها موم نيت كي لمو سوخلا موي غيس نكو غنا دك سي كاو سوف رك غيس نكو واو غين في دك رك ولا غيس نكو كازو دنا في ويخزفون بالغيب من مكان بعيد موم موي سوري بلي kon war na waa mu nga soxla ku suufin lu mënta ne maanaam lu sori ndax mën na nekk nit mën naa dund du dee si njëf mën na ne mënta ne kon bu ko yéene itam bugg ñàkk fi jóge mu ngay séntu loo xamante ne ka suufin lu mënta nekk la maanaam ka got naa ngok fil mu ki muy mën a toog mu xëy di mën a toog fii rek too kenn waxee ji waaye nag mu ne war ruuxu arfan ruuxu boobu nag nga xamante ne moom mooy àndandooru yaram bi dafa am loo xamante ne moo ca xew mooy kullifa dañ ko dal di jox responsabilité mooy an yu zawada na ut yobbal li nawaa fa nga xamante ne foofu la soxla mooy àllaaxira fa mu jëmale mooy lil mada te lan la war a yobbal an yu zawada birran la nga xamante ne moom mooy lu baax loolu la ko yàlla wax wa tazawadu la ko wax yàlla ba mu bindee nit ko ci kaw da ko ne ko utal yobbal tazawat ah. fa tazawat mhm. da ut yóbbal fa inna xayra zaadi ak taqwa kon moo tax mu ne war ruuxu ruuxu ba mhm. kulli fa yàlla def ko teg an yu ne nañ ko yóbbal birran lu baax lin na waa ngir fa nga xamante ne foofu la jëmale mooy àllaaxira alxuraan moo ko wax ne la ngeen liggéey lijjante seen àllaaxira fa xaaxuwa mu ngi nii nag mhm. moom ruuxu bi baana feeñ na ne غير مزود amul dara mhm. mu ngi nii moom ruuxu bi ñëpp xam nañ ne nga set nag arfa sa waajoo jox machine jox ko père jox ko ndox gis nga jox ko engrais jox ko mbokk laboureel ko gis nga ko jox ko yeb mu dem bi nawet bi je mu di lay xool ak neen doo ko dugal kaso yow laa wax doo ko dugal kaso waaw ah. loolu moo ca ne parce que li ko waral mooy ne dafa lekk sa la dafa lekk sa kon lan la waroon a def mooy na liggéey nga am ci lii moom mu am ci lee mooy yàlla ba mu la bindee jaamu ko jaamu ko jaam wi lam cay am mooy pour mu mën a xam wane màggaayu boppam yow na nga am ca aljanna bi leen gaay di jox mbokk bi fii Samba Gueye li ngeen doon am ak tuba bi lim doon am ban moo ëpp aarfa ah, mom moo doon uppat am ah, moo doon uppat at yeb wala do at yeb at bi bu neexee kan mooy uppal yo yaay uppal parce que moom ay kilo la soxla kilo yooyu nak daf koy fixer waaw loo manti ki fix kilo yooyu la soxla bari le nga kilo la soxla tuutile nga kiloom la soxla kiloom ya yu matul sa nga fay ko mooy la leen daloo at boobu waaw waaw yaa koy fay di parce que ay kilo ngeen waxante léegi nag mo doon nag yàlla ak jaam bi jox na la ruuxu bi ak ni mu foore yaaqil ruuxum taaqil mën a xalaat mën am lu muy bugg am lu muy bañ créer yaram bi defar ba mu baax génnee bët génnee tànk génnee bëñ génnee lépp butit yi mu jël tegal la yuur yi yëpp mu tegal jël ruux ba nag gis nga ko mu nekk secteur buy dox ci biir nga nekk fi nag yemu ca de mu jël ndox jox la jël safara jox wa saxara lakum maa fil ardi jamii'an benn naaj bi sax mu jox la yemu fa de mu yónni yonente mooy mu xam jox ko ab liivar gis nga ko mooy mu mel ni def laa paquetel téléphone télé téléphone bi defal la ko lan nu ngeen koy tudde ku téye bu catalogue catalogue voilà ah catalogue mooy Kutayib bu Taalimaan léegi loo ci xamul demal ci Kutayib bi wala du noonu nga liggéey kon c'est normal yàlla tooñul kenn bu la waxee ne woo naa la téléphone jotuma jotuma la te joxoon naa la téléphone bu ko neexee xas la yedd la kon moo indi problème bi moo tax seetal nanga nga fexe ba ci fii ci àdduna li la yàlla utloo nga indaale ko na nga ko indaale moy takwa, parce que ci bir yépp ya, la jël dara léegi nag la takwa. laaj indil ma takwa ma uridu minkum min rizqin wa maa uridu an yut'amuni buma indil li indil ma man leen rek la soxla arfan nang mako indil ci li ma la jox yépp nang ma indi ragal yalla manana nang ma ragal rek rek rek rek la soxla kité bu na may kité bu na may wa kon nañ ko ko jappal de yobalel ko ko bul ken taxaw ci kanamam te ngëbu la dañuy tuddee wala déet ku la gën a mbaal nag ci taqwa nag uppale la martaba ca moom a ƴewanona nga i mbofa ɓisiid ka i mbuus galas no <laughs> taqwa tane na waaye am na ñoo xamante ne abaya bor auzubillahi mu ne wayu xattu anhu danañ ko wàcceel nag ibuhu coonam wayu kafu anhu danañ ko teel quyuduhu ceenam ya gis nga ko fa macha waaye mu ngay dox nag rasifa mu nga gis nga ko seslante doxinu ka nga xamante ne mu xayya di dañ koo ceene xam nga ku ñu ceene gis nga ko par ndànk-ndànk lay dox waaw par ndànk-ndànk du sori xam nga ku ñu ceene ca bàyyi jooyu daari jiyaat mu ne mu ngi ne nag ci la yàlla wax na ko ne ko am demal nga yóbbal mu ne indiwul benn yobbal wayu xatu anhu wàcceel nañ ko ebuhu coono yëpp wayu kafu anhu kuyuduhu jindi nañ ko ceenam lépp loo xamante ne mooy kuyudi rek yàlla dindi na ko ci moom mooy lépp loo xamante ne mën na tax mu yàqule lan moo tax la xaraamal sàngar arfan daf laa jëndil ceen bi parce que boo naanee sàngara rek tooñ saaga sàcc def loo xamul wala déet kon bi la teree sàngara bi maanaam daf la dindil ceen bi sànni la kon bul naan sàngara nga gis doo def yooyu noonu wala du noonu la teree fen xakada parce que boo fenee da nga mboosoor da nga ila axirihi mu tere la ko pour man la oyofalal yéen bi moo tax mu ne wayu xattu an wàccel nañ ko ay buhu coono ba wayu kafu an hu kuyu duhu teel nañ ko itam gis nga ko ay ay ceenam waaye ci biir loolu yëpp fa macha <laughs> mu ngay dox de rasifa seslante ay tànka mu xëyee di comme ku ñu ceene mu ne loolu yëpp nag wayu maatu an hu mën nañ ko koo dindil waaw yooyu yëpp bi tawbatin ci tuub bi maanaam yooyu nga xamante ne mooy yooyu nga moo diis ci boppam bi nga xamante ne mooy dox dox ku ñu ceene ci diisaay yu bàkkaar yi mu ne lan yi tax loolu mën a denc ci moom wala déet parce que koo xamante ne yenu na pan manta daw nu yenu bi gën a diise rek nga gën a wàññee say tànk mu ne nag moom danañ ko génne wayo maatu danañu génnee anhu ci moom loolu yëpp adraanuhu tilimam ya bi tawbatin ci tuub wa yumaatu danañ génne anu ci moom adraanuhu tilimam ya ndot keeten bi tawbatin ci tuub hatta yaoda be mu daal di dellu ila safa ci set wecc kama budiya kan na nga xamante ne noonu lañ ko commencé set wecc ko nga xamante ne keroog ba mu judu ci gis nga ko waaw keroog mu judd ci biiru yaayam mm. des na fa bakkaar yonte baa ko wax waaw mu ne boo tuubee boo tuubee lépp lu amoon ci bakkaar yàlla jéggal na ko moo leen tuddee tawbatan boo tuubee yàlla dafay faral say bakkaar yëpp waaw moo tax mu ne la dana dellu comme na ko yaayam wasine yéen wax ko ci xadis ne ko ku wax boo xëyee gis nga ko astaxfirullah azim alladi la ilaha illa huwa alhayyul qayyum wa atubu ilayhi mu ne boo ko waxee ñetti yoon lépp loo am surtout subateelu ajjuma mu ne loo amoon ci bakkaar set na keroog ba sa yaay bi lay wasin ni nga setoon ci bakkaar mu ne nan ngay sete kon loolu moo tax tuub baax tuub baax nga gis nag boo tuubee nag léegi nag dafa mel ni oto boo ko dal dee gis nga ko waaw nu ngeen koy tudde nu ngeen koy tudde vidé vidé ko walla boo demee ci téléphone wala ordinateur xam nga message jour nga gis dafay beesaat dina mën a dox waaw bi taw batin boo tiwbee rek yal na yàlla may tuub waaw moo tax gaay yëpp gis nga ko daanu ci àll bi yëpp ñàkkaatu moo ko waral yonent bi alayhi salaatu wasalaam mu ne sama xol bi ina la yoxaanu qalbi kam kama yoxaan leeg sama xol bi damay tok rek am ay bakar yu ci ne xawati lim non moko wax dalay sa salaatu la ko wax waxinam la xam ngeen yéen tamit set ci bakar mune gis nga ko noko ge gee mu ne ko damay jël istixfaar damay def astaxfirullaah temer yon par bés wala juróom-ñaar fu yoon par bés kon bu de rasulaay moy vidé di def message bés bu nek kon yow nak bés bu nek da nga wara vidé bés bu nek da nga wara a bés bu nek da nga wara setal mu heurtanga bo wondoka sa nekk doo bale bés bu ne dama lay laaj doo bale bés bu ne voilà bu koy bale boo ko dul bale bes bu nekk du tilim dafay tilim kon naka noonu noonu ngay bugg di bale say bakkaar bés bu nekk na nga def istighfar safurla téeméer yoon ti kaa maye may ti kéege ti tabu kéege maye de wala déet maye ah, maye استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله دي تيمور يوف كون موتاخ مو نه ويمات عنه دنن جيني سي موم ادرانه تليمم بتوبه سي تو حتى يا ود بم دال دي دلو كما بودي نا ميلون بو نيك الى صفا سي سيتات ويتش ويشال دنن كو بودي انا انا ووسي دل من وحدي تشاخ الحظوظ بنخ بكنم يكتي كو الى العلا تشكو نك تي نك بتعلق نجاباندكو بتعلق نجاباندكو ci lafitu rasulillahi rek ay bi sunna wa taxalluqin ci jikkowoo jikkoy rasulillahi rek na mu meloon wa tajarrudin summeeku ca la yonente bi summeeku mooy àdduna parce que rasu kullu xatiya addunya gis nga sa xel mu ngi nekk ci àdduna rek pour nga set ci bàkkaar dina jafe moo tax mu ne wa tajarrudin summeeku ci àdduna bàyyi àdduna wala déet kon bi taalluq boo buggee setal génn ca la nga moom mooy bànneexu bakkan pour yéeg ci kaw da ngay jël taxalluq moy jappandeku ci lafetu rasulillah moy jappandeku ci sunna taxalluqin nga jël jikko ya parce que loolu lañ tuddé tasawuf sax taxalli taxalli taxalli suma taxalli suma tajalli akada waaw wa tajarrud ak summeeku moy setlu bakkaar yu tilim ya arfan nga setlu ko jikko yu ñaaw ya nga setlu ci wayu fas mu ne danañ ko fomp fas mooy kii xoosiñ neen foppi nga dafay des xomaak waaye boo ko foppee rek mu dëj setaat yëpp moo tax mu ne wayu fasu danañ ko setal minal xama i mil xama i waaye minal xama i mooy wax bi minal xama i caban ba ko takkoon alladi nga xamee kat caabahu moo ko tilimaloon bi ta annusin ci wéttale ko alquran wa tawaxusin ak wéet ci nit ñi wa tafarudin ak bennoog sa bopp baax na de waaw ta annusin wéttale ko yàlla wéttale ko yàlla jafe na nag parce que yoo kenn nay toog gis nga ko waaw da gis gaa yi loolu moo tax ñuy toog ci seen biir néegi rek sëriñ bi gisul biir néeg lan moo ko waral dafay wéttale ko yàlla dafay wéttale ko yàlla dara gënu ko neex nag wéttale ko nag dafa ne yu nga amee yaa ngi wéttale ko yàlla au contraire moom bu ñëwee ci ngay wéet parce que doo mën a defati yéen ñi doo mën a defati yéen ñi kon na ci yow. hakada moo tax mu ne bi taannusin ci wéttale ko yàlla wa tawaxushin ak wéet ci nit ñi moo tax ñu wax naan sax bokk na ci mandarga yi ne kii set na ci yàlla mooy bu demee ba setal mbooloo daf koy gêné waaye bu nit bu demee ba mbooloo moo koy sawarloo des na ci yàlla des na bu rëy ci yàlla kon moo tax dama tawaxushin maanaam wéet booy gisee nit ñi def koy wéetal waaw wa tafarrudin ak bennu maanaam moom kese rek ndeysaan muy nekk moom kese rek foo dem ndeysaan bëccëg mu nga moom kese guddi mu nga moom kese alayhi salaatu wasalaam wax ko mu ne balaay yàgg ci jamono yàggatul de yuusaku an yakuna xayru maali rajuli ganama yatba'uhu shi'abal jibil jibal jibal mu ne balaay jamono di yàgg yàggatul tuuti rek doon de yegg nañ ci mu ne liy gën ci nit ki mooy am sa gis nga ko gàtt say gàtt yoo xamante ne da ngay di sàmm ci àll bi gis nga di sàmm ci àll bi di sàmm ci àll bi di sàmm ci àll bi boo xiifee ratt ca gis nga ko ngir mën a daw ak sa diine walla dem ci àll bi daw làqu ji foofu noonu ngir nit ñi buñ la jot yooyu tam bu leen jot kon defe naa ba pol bi passé na parce que fi mu nekk boo tee ay say nag problème ci kii rek nit ñi du nga sama tool ah ila kon ban moo ca des dem làqu ji ci àll bi mooy comme ni bi def ni rek ñëw ci àll bi làkk fi di fi jaamu sa borom di sellal sa diine gis nga ko akada wala du moo tax mu di koy wax bu nekk ne bu ma neewoon ma dem dekki Dakar e ndaw pertement woykat ba waxoon na ko ah, Ndakaaru kaa yaakaar kii mënuloo ci dara hmm. foo jaar changé hmm. laaj leen ñoom ñi gis la niñ mel hmm. si ñoom de moo tax dama ko dama ko seetlu woon à Arfa seetlu ko xale yi Ndakaaru ku dem façon yooyu noonu ma ne affaire bi que du ci ndox mi ma ci ndox bi est-ce que du ci ndox bi ku ca naan ca ndox boobu ñaari hmm. semaine ñetti semaine boo ñëwee rek ah waxal rek yaa daawut mbir la de kenn xamul lan dafay changer ni kon dem ci àll bi daal dafay jaamu yàlla baax na. mom la yenté bi wax kon mo tam né ne la bi tafaru di? nit ñi nak bëggu ñuko wala de waaw barke dem rek mo ci mujj ba ñuy waxal gis nga ko benn way bu ñu war a affecté ci benn ki gis nga ko euh, est ce dañ ko indi sirmang sa mu né est ce que dina nangu sirmang parce que ñom gaay dañuy daw alli bi ay nakaru ay ay fatik ak ay ñu maanaam dal yurum bu xamaay yooyu lañuy soxla nit ñi yooyu moo tax mu ne la bita anusin wata wata wata wata arfan ci nga mana sete jikko yoyi di nga xamante moom mooy dab nit ki jikko yi saw yooyu jikko yi saw yooyu wax la soo xam sa yoon nekku ci sa xol bi di xoñoñ sa xol bi di dugg ci añaan di dugg ci gis nga ko ci yooyu ñuy tuddee daal rëy ak di ciy dugg booy daja boy dajaloog nit ñi gis nga sa ci ci lay denc ci lay denc ci lay ba dara du fa desati ndeysaan moo tax mag yi doon daw ci àll mu ne wayu maddu ñu dal di dooleel dabaahu ñaari mbaggam ya wa yuqaxalu ñu dal di tusngeel jafnahu botam ya bi tazakkurin ci buy jàng alquran wala buy wirdu tazakkur mooy di zikr wa tafakkurin ak buy xalaat bu am solo tafakkur mooy xalaat xaw ndax da di xalaat ci jaamu yàlla la bokk moo tax bi mu demee ci xaaru Hira taxannus lañ wax وهم يتعبد تحنس ميخلات وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين تموقنين مي مرتبة بيجينا كوي مرتبة الإيمان بس كأركان لا رب لا هدن لي متقين الذين يؤمنون ويقيمون الصلاة ما رزقنا الذين يؤمنون ما أنزل قبلك وبالآخرة هم يؤمنون لا لا بس يقين موجنا سوري أن يتدي إيمان ولدي م? لا الايمان بين في هذا الوقت النساء يطبخون في الم... يطبخن في المنزل ام غا تي ايمان كاين جيجن ني توغ واي بو ديمي نا بي جاكار لوك تيني نك بو ما يقين يلا كم ني بدي جي بوت هو يو دا ngay dama dem gem ni ah yalla amna yalla amna de alakhirah amna na aljana am nonu. yooyu noonu waaye nag alquran kholat mbir yu baax a da ngay am yaqeen bu wer ne haka yalla amna di motam ne wa kadha nuri ibrahim malakuta li yakuna min al koku ci tafkir mo la koy jox mana ci xalaat nga koy foré mo yaqiin fofu nga koy amee moo tax yàlla mu ne atafakuru saa khairu min ibadati sana mu ne toog benn waxtu rek di xalaat ci yàlla moo gën nga toogoon di wirdu ba junne at nag junne at daanaka ci xalaat ci xalaat ci xalaat wala ci gis sana kii la xalaat wala ci gis xalaat ci na wa kadalika nuriya ibrahima la wax maanaam daf ko wan pour mu mën a am yaqin waaw waaw indi na ko wax na ko naka la demee waaw ñun tamit est-ce que dañuy wan pour ñu am yaqin alquran indi na ko laawa fa lammaa raa shamsa yow xoolal shamsi waaw eh, loolu du shamsi de shamsi lan man yàlla ñeme na di wane ay shamsi ay shamsi yooyu ñun ñëpp ñu gis shamsi muy wan Ibrahima shamsi war na ko wan lu gën a rey shamsi kay waaw ah, suñ bi tam ñun dañuy dem di bi <laughs> kon sa diwaan bi nekkul bu yonente bi <laughs> a doon <laughs> ah, yooyu lay ah. loolu moo kon il faut di xalaat kon toog nii di xalaat benn waxtu rek nga am ko di xalaat mu ne moo gën nga am junni at yoo xamante ne da nga koy wérdu te àndula xalaat kon moo tax léeg-léeg nga dallu dallu ko ci yàlla parce yaa ngi tudd yàlla nag yàlla ak daal yal muy di xalaat. xalaat nga génne ko parce que di ne kan moo defar yàlla génn génn hmm? voilà génn bi ah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah yàlla ëpp na kon boo demee ba yegg ko rek génn ca kon moo tax way yu maddu danañu dooleel dabaahum mbaggam ya wa yuqaalu danañu tusngeel jafnuhu botam ya bi tadar tadakkurin ci fàttaleku wa tafakkurin ak di xalaat wa tafakkudin ak di gëstu moo la la laxdari wax ne muraakabati mawlaaka alladi tusalli min ajlihi